kadi Dal moo bëri ça kadi saf sell te wóor Sen Gold, une nouvelle vision de la bijouterie. Oh Royal, Burundori. C'est assez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 conseil national de développement de la nutrition nous leen di ñaax ngir ngeen dooleel xale yu am juróom benn weer ba ñaar fukki weer ak ñett ak lekkin bi gën ci ñoom. Optez pour les tenues et accessoires modernes africains disponibles sur le site awalibis.com pour une livraison partout dans le monde et dans les plus brefs délais. Évitez l'ouverture fréquente et prolongée de vos réfrigérateurs et congélateurs pour économiser de l'énergie.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 toile africaine. Global Textile. Johanné Couture, une belle tenue augmente notre confiance en nous. Johanné Couture. Pinot Fashion. Ara. M60. Fatty Shop Prestige. Ideal Style. Ubi, l'horlogerie sénégalaise. Amna. Le Pop Shop. Lima Boutique. C'est toujours les mêmes personnes qui font la grève ou quoi Vous faites une grève on passe à la vitesse supérieure. Il est temps a wone depuis que changé. yow la gay amul pour Agro yow complice nga Tanor lu mu def xam nga ko. côté gauche qui Retrouvez votre série La Graine du Pouvoir tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h sur la chaîne YouTube Marodi TV. Babel. kondaane bii de moo ma sudee at. ngay cos kondaane bi raam ak yow. kan ma cos yow. ah yow lu la neex rek wax ma. am betul dah. Kamu jóg na dem koy yow sa ñaan si man moom kenn si man ah biram kumba demal te ñëw yow jàmm am biram kumba jaay ay ca jàmm rek am jëf kon la mare waaw ni jaay moom noo def maa ngi nii jam yaa ah mare mare géntati naa loo gént gént gu am solo lalal ma basan gi wax la li ma gént lalal ma nii lay lalal rek na nekk gént waaye man gént daan jàmm rek lay lay gént yow daal lalal rek man daal gis nga mare toogal nii loo géntati sama yaram bépp ay metti bay lay coono baaxul man daal gis nga maram bi ci guddi yow lan nga gént nga ni gu am solo la ndax gént gi xamal na ma ne ren tabaski ren gii luñ ko fal rek mu gën a baax buñ ci sol yére yu diis buñ ci sol mbasin buñ ci sol borole buñ sol benn yére mel ni kuy puuk réew perkaal la ñuy xotti. Ndiaye Mor sa gént gi diis na de perkaal ni néew bu ñu tëral. ma la ci leneen gis nga fi mu ne di tabaski gii daanaka ay rey xarak ay laadu mag xarum yarak yooyu yëpp nañ ko jël teg ko ne le taray ginaar wut ginaar gu baax tal koy rey te xam nga lu ciy tegu nag. tumuranke nag dañuy day dal ni dëddu nak ñu tàggoog nak ni nijaay mo heure bi ko géntoon dama nga tëddaat heure boobu nak nga géntaat ko lima ma gént gént ko ba paré marém ni nga defon ba gént defaat ko ba gént demal nga teddi tëddiwaat ci man dal gént naa ba paré té lima ma gi yépp wax wax na la Kalis lebih nag li bëgg nag ah waaye teel jong ba tey jéem a dem sama loxom bi bëgg xaliss bi. waaw mon cœur sank maa ngi la dégg ngay waxtaan ak papa Ndiaye ci walum jënd xar bi nga yaakaar ñu jënd ci sa mo gëna rafet. ñun ñan. man ak yow xana ki d'autre. fa Fakon danga naa tabaski ren. bien sûr comme d'habitude depuis ma commencé liggéey ba tay damay jënd xar pourquoi ça changerait maintenant. non mais mais quoi bébé Je Sénégal au Sénégal xam nga ni que ou quoi que ce soit c'est juste que sama la. tu utilises mes termes pour en faire des arguments c'est injuste. <laughs> life vie injuste mon cœur c'est compliqué hein mais bon je nga que gi aussi ko fi def. Mm. du c'est-à-dire mi nga suis de ci

mu dama commencé stressé sa sa dara xewul c'est-à-dire mi nga xam dafa tàng xool xam naa du may dara kër gi nañ ma mamb de garaawul ñu mamandoo ñu suñ ko sombee naanandoo ko Kumba mhm. julli bii ren dëgër na ci man de dëgër tu vois rien quoi wala man mii nga bëgg a tooñ man célibataire bu bon bi kuy sa jëkkër sa dex caam doomu njuga caam nga naan mooy wax ay waxu dëgër ko laal waaye xanaa moom jox la c'est-à-dire xam jox na ma waaye xam nga moom farata rek lay def te li may jox mënuma ci def li ma bëgg a def yëpp. farata aw xanaa yaa deux définition de farata parce qu'il jabaram bee di def feuille flamme ñaareelum bu wow bët boobu c'est-à-dire koy jox di wala yow moom tu mérites pas jàmm sant bi sax nag da koo jarul aw foo toll ci man yow tamit.

am na façon yuuxu bu mu daan yuuxu <laughs> loolu mooy gën a ma gàlle bi. du xar du xam du dara yow rek laay déglu yaa booyee foo toll ci man. waaw baax na dégg naa la. ah waaw kon baax na maa ngi lay déglu kon. awa Cheikh déjà lii bu la doyul man xamatuma yow yaay kan lii lañ doon wax léegi sa yaay di woote di wax la même chose sa yaay mu ngi mel dafa dégg suñu discussion ma ak yow awa Cheikh il est temps pour nga ibbi sa bopp bi def ci ndox xool ma li la nit yi di jëwee man dama ko def. su fekkee xarit bu ñuy woote moo nekk sama diggante ak yow dama lay wax dëgg te loolu lay def cest à à quoi il joue moom mën na ne ñaareelam bi lu mu jox ñu mu dagg mais quand il s'agit de toi nii rek en plus yow est-ce que sax c'est la faute à Sadikh parce que yow lu neex Sadikh neex na la yow doo kaas doo bouger doo def dara lu Sadikh def baax na Sadikh dañ ko war a wax dëgg Awa ah Cheikh man du ma la seetaan parce que su ma la seetaanee yow dañ lay sax reetaan il faut que ma boole la sama paa bi. kan gàngoor la de déjà yow dangay xool aw Cheikh il faut nga xam ne alal fajul dee gàcce lay faj dangay xool li nga mën a jël sa takkaay nga teg ko ci loxoom ci sa turoon kenn du yëg mu jox la somme bi nga soxla bu paasee bi nga delloo ko ko ñëpp noonu la def te kenn du ci si dara. kumba loolu ñemewu ma ko cest à doo rek la ma deful bis bu yëgën damaa tay la sama takkaay daf may rey. c'est-à-dire par là. maaleykum salaam. maaleykum salaam. waaw Kumba na ngeen def. maa ngi nii namu naa la tu vas bien. la raw. maa ngi lay laaj ci léegi aw Cheikh. dëgg la maa ngi woon kaw. tu vas Kumba xanaa du oor yi nga xam ne moo ko tëgg ak ay loxoom de. da koo teg ci ba bakkenam da koo xàmmee lu ndaw lu ci xoosu xàmmee na ko Kumba risque boobu du ma ko jël. ah. Amar nagam ça va ñëw mang waaw ñëw lay fan xam nga tabaski bi ñëw na bi incha allah ren dama fas jël lépp tekk sa loxo man mi tondo si ya waaw momi mii yaa ngi eh, allah ni mën nga ko ndax am nga yar am nga teggin respecté nga sa nijaay respecté nga ñëpp daal bul wax yow déglu ma rek soxlaawu ma sa xalat da nga bëgg jël ko teg ko sa ndax mën nga ko. eh ki xamul xar kee min ki nga laaj ko si keesu jën lu muy jar mo gëna gaaw xar de. wuy ma yow laajuma la de nga baax ma la wax. loolu la bëgg nga defal mako tiya okay ça va. Thioub papa Khalil jantal papa. mais ya yaa neexiree li ngay rey lan la. yow ya, li leen lay bay quoi. ci borom far wesh wesh grâce à Dieu xarit nakam ça va naka suba si ça va bien ça va bien si alhamdulilah mais maa lay dégg waxi xar ngeen di wax man xar boobu ma fi indi dama soxla xar ga ah, xar de ren moom ku ko bëgg waxal ak Tidiane ah Tidiane géré ah tos waa gis nga de ah mais c'est bien sa nijaay dafa soxla ñaari xar yu mag ma ñaari mag ci amul problème di nga allah nar a xar yu ah ma teg ko sa loxo amul benn problème bu wax dara léegi bu ma ñu may xar yi ngooña def liste des après ñu dinañ allah amul benn problème Amar eh Amar may ñu ñu waxtaan ma yow eh Tidiane eh. Amar kañ la ko ok yow dama dégg nga ni ñaari xar. ah yàlla na la si yàlla gën a jàppale. amiin amiin amiin grand vraiment kontaan naa ci ñaan yi. te mu jigle aussi. ñu bokk ko ñun ñëpp nag ren faa dafa décidé jëndal boppam xar. ma lay da ngaa mbir réeree sa cosaan réere diine xalil xanaa xamoon ni yow boo jëndee xar rek yóbbaale nga sa soxna. grand femme muskalaf la comme yow comme man te li mu bëgg a def diine ànd na ci. mais bu ko diine maye te kër gi musu fi am nag yow doo doon góor nga imposé nga jéem doon kilifam. grand c'est seen idée yi ngeen am man aw ma ci idée neewu ma ci foofu. gis nga xalil cam kër gi këru ñeeño la. ay góor lañu ay jàmbaar lañu kenn mësuñoo duut baaraamu tuuma bul mu mësa nangu jaak sa jabar ngeen ñëw fii di déstabiliser kër gi. destabilise kër gi indiw ñu fi man ak sama jabar Fat Bintou dafa mën lu baax di ko def te nag ku mën na def ndax loolu lu baax la duñu def lu dul encouragé ko bonne journée grand mana Nabou Gueye. foo nekk yow mbaa jënd góor rek. lan la daa am la sama ginnaaw. waaw da ngaa jënd ba pare ah déedéet Nabou loolu mënul nekk de. ma ne nga delloo xam nga li tax ma wax loolu. jënd naa xar ba pare lan laa koy delloowee. xanaa ju bon gi ci kër gi lu fi nit mës ta def loolu la bëgg commencé nii. luy day jënd tas kër gi dee ko yëkkati loolu nag man Nabou Gueye du ko nangu. dégg la waa baax na dégg la. ki il faut ma ak mom dafa jot. wa baax na de loolu sama yon nekku ci lolou dafa sik waa baax na problème. si ay man am Bagal ma waaru ay Nabou Guèye li lan la Nabou dis nga te wo woo Nabou lan la Nabou yo fa bu jënd xar ak bu jëndul xar lan mo ci sa mom bu jëndee xar posam la génne jënd jëkëram jox ko wu ko jëkëram nabu di loolu ko yamal mag gis nabu samay wax da nga naan dama bari wax bari ma wax de bari ma wax dari li nga bëgg def sa bop bi mo nekkul nabu sa wax gu bari gi sa mbet mbet mbet mbet bu dul jeex yi lan la yow mëno rek né yow da nga waar waye man jinnee ma mbéj man kay bama jomé du tay ndax da ngay dugg lu ci sa yoon nekkul yow yow lan mo ci sa yoon ci man ak lan mo ci sa yoon ci sama téléphone ba ngay am loy wax marem Thiam Marème Thiam ñaangal ma wad man xey rocce ku ci yow ba mu set wicc tek la nee yogum ni sax nak yaa dundu wala oxygène baangi jaar fi ci sama bakkan yi yëguma de yo pour yow ni ngay def moo nekk ni ni nii nii lii nii moo nekk dangaa defar nga kan nga pare nga dama lay laaj may jek bu bon bi waye man amna kuma girantel ndax man sama jëkkeur mën na bay def di ray xaru tabaski waaye yow bay ngay ray yow bo seño yapp xar fi la ci sa kër bay gi da nga ni bay waaye dina ko jënd te sama poste lay jóge sante yalla da nga ni sa kër bay sama kër bay njuga waaw dama la jëlé sa kër bay nak andi la sama kër bay loolu nga def yow bo ñëmé yapp fi nga ko ñëmé yow it ndax dama la jëlé ci kër andi sama kër neex lool nga fuuy xamoo sa bop xamone nga wara def xamone nga wara wax. way yow dimbali ñu way yor nañ mama yow yoru ñu la. yow demal nga réglé. yow lijjantil sey li yow sa kay sey soxor nga torop. ta dem li lijjantil sa kër. yow yaa ngi mel ku amul kër. nga melni ku amul kër. so yewo ñew di ñu lijjanti wa ñun ñi ngi ci kër gi sax nek ay jeeg di defante. jaay nga jën jaay jën ba sa digg bi melni ni ahmad Bari sa digg bopp bi leer nga kaw leer suuf billahi ya ma sonal way yow man buma buma ragal won ne la xor nga way bo bokul won ak sama jëkkër yow bay mama wad way nga may seenu ni ah. baax man yoruma xar bu may jaay ngay dem ba kër ga di delo ci yaay ngi yaa xol xar bi becc ak ndar gam ma jaay ko nga jënd. señ bi yow ne ko pharmacie bi. man dama guma kër ga sax. way señ bi man pharmacie ak dara la yamale daloo ma la dara señ bi defal naa wa leg man mu mën naa da nga da nga jox ma kuy bi. bi ngay gis ni xolal prix mom kessa la momit waaw bokku ñu sax. man leg numay may ñaari xari señ bi. wa li ngay doyee ñaari xari yow la concerné ku baax ki man jaay la xam yow do wax ak mom mu mu defal ma li moko wax. way sa way lamiso mi ngi waja bari yow ya def erreur. yow ki bobu legi xari ni ñi ngi wara liggey ji bobu ba nga nek fi di wax. señ bi nan dem nan dem non non amul luma ci wax bobu ba dafa yag demal nga yobu sa xar. xamna nak da nga joge fi dem sa kër sa soxna am lu mu wax ak yow rek ku dem sax la ni da nga tolo xar bi motax nga bañ ko lewe fof nak yeguñu fa ñen nak njaay lañ seet. loolu yow lo concerné. eh boy surnam bali way yow surnam eh xam ma wuy ma señ bi eh eh déglu ma eh duuli xaalam eh yow eh, yow xal eh waxal ak man yow sëñ bee ci ma rouge bi rafet na de est-ce bi nga sol ko ci matinal bi su ko defee nga wàccee Baabel kuro bàyyi nga danga may tànnal tenue nuy yow lan moo tax nga jonge yow jaaxal nga ma d'accord naa mais xanaa kon soo ma tànnalee ba pare maa lay tànnal. yii man Xalil lu mu tànn rek laay sol su validé wul moom bëgguma. jonge nag yaa ci toog jonge rek nga def man yow laa bëgg nag mais rafet na de. Mm. j'aime bien en plus c'est fleuri et tout. mais am na yeneen yu quand même am na yu ma seen comme bleu dentelle bii si am na yu oyof kay. fa tàng. oui allo.

genre Sérine mort bu, bu Marème? Wow. Donc là, là, si je comprends bien, dans dem ci sering qui plus est Nidia est mort, ses relations, c'est ça C'est vrai que le dire comme ça, c'est ridicule et tout, mais j'avais pas le choix. Il fallait que mon rôle, l'un de mon Désespoir, dina la a des bêtises, vraiment ni nga ko man si c'était moi j'allais pas le prendre comme ça maturité bi nga ma wan ça m'a surpris vraiment merci. Leila da nga fatini ni que man ak yow ñoo dëkk te même bu féké touti sax yàggul la amna na loo jotna ko xam ci sa jikko tey ni. nii boo demee bay def yéen dafa fekk ni que li nekk sa xol moo ëpp doolé je comprends pas. Leila da nga nopp Babs ba tey. pourquoi tu me parles de Babacar Babacar c'est une histoire ancienne koko xalaatu ma ko sax on est entre filles. Tu n'as pas à me cacher certains trucs. Te cacher des trucs, je te cache rien. C'est fini entre lui et moi. Hmm. Le hasard fait bien les choses. <laughs> Ah. Tu de moi Je me moque Salut les filles. Ça va, tu vas bien Ça va, Alhamdulillah. Leila

2017 dal leen seen xol ak punch c'est une série Babel conseil national de développement de la nutrition Nous leen di ñaax ngir ngeen dooleel xale yu am juróom benn weer ba ñaar fukki weer ak ak bi gën ci ñoom Pour ne pas avoir une trop forte consommation d'énergie, évitez de surcharger vos réfrigérateurs et congélateurs. Sénélec ak Woyofal yaxanal énergie yaxanal se poche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 vous bénéficiez d'une prise en charge complète et rapide avec Askia Assurance Auto. Askia Assurance, la sécurité financière pour tous. Diourane Couture. léegi man nan tabaski bi ah tabaski laa daan fatt samay projet yëpp yor full do. sama client yi daan jëndee si man xar lan la leen di waxale. Hein? ah. ah xalaa da ngay yor sa projet diko dawal nice grand yi war la épauler ñom ñolay lay teg dam say

da ngeen di def ni ma def ndayam classé ko teg ko ne à côté ki xolam mën ta neex so amé nday coow bàyyi dóor kan sa xol du neex ha ah? bàyyi leen ma kii man ki nga xamné amul paltu amul place e eh, jogal ci biir yow ba xol li soble bi yeggali ko. ci ma dafa dëgër fit de. yow dama bëgg a yow Omar Thiam est-ce que daggal nañ la yow wala li la daggal la baxul yow dama bëgg yow ana sa ngóora nekkal góor na góore waay ay jógal waay yow xoolal mu mel ne nii muy yappar yappar rek mu mel ni tàllaar nii i soof na ma waay eh, eh. may ma defal tey ay fi sama territoire hmm. may ma ma naan maa ngi jéggalu ñàkk jom ci bay yëpp mi ci mom ni rek wax du wax becc da ngay wax a wax wax ba bëgg a sama journée yëpp ya, ya, ya, ya. ak jàpp ah kenn mënu la wax loo dégg nga dëgër bop mun ne ma ah da nga dëgër bop baal ma tijaan mii def ko ni ma def ndayam gisoo man dama bërngal ndeyam ma koo bàyyi tout tranquille lutax tax mënoo leen a bàyyi. wax nañ ci ba pare. gennal ci ñom nak fala yam ak yow. wan man ni ñuy enregistré appel. enregistré appel yow ko ngey gassal kàmb fofu tamit. eh ma sa morom de dana ma gassal kàmb de nga limala wax ah. te ni nga won ma man. dëgër bop bu bëgg a dee chaque jour mané la génnal ci ñi waaw da ngay nak ma won la limay def. ah légui nak may ñaké sa ah xadi caam da légui ya ma mën jaw ropi nga ma dé dama koy bayé de. waaw baax ah aw Cheikh ma sha allah contane na de wax dëgg yalla waaye xam nga ni teraanga gi teguma la ko. Ah, du dara ne ko bokk. mais xam nga comme que liggéeyoo jàppoo ci dara tamit. nga bëgg a def teraanga gu toll nii day daal di metti. dëgg la liggéey bi ma de waaye lu ma yàggoon bébét la. bëggoon koo def mais dañuy wax ni que jàmm bi moom su sabab loo def ci dara yàlla bu dëggoo ci moom rek suñu borom da ci teg loxo. macha allah kontaan naa ndax muñ gi nga toogee ci kër gi. ak jàppale gi nga def rek man moo ma gënal lépp yàlla ñu toog. ba jabaru Insa di la teraanga. maaleykum salaam. yaa booy. na def. ñu ngi fi rek. waaye aw Cheikh tey daa yendu si gorom. aw Cheikh tey daf maa yendu si. indaale teraanga ju baree baree bare wax deug yalla te beni ben yoon ndax ña nga ci kër ga tok di sey demuñu dikkuñu kenn xamalu leen dara hmm. nekkuñu fa di xulo wala ñu nekk fa di xex mu gadd lu bari li indil ma kon yàlla na jammam yag <laughs> sutural nañ seen borom kër yi am nañ jamm wax deug yalla yena xam nak lu ngeen di wër ci ëttu babel bi yalla na ko yalla defal amin amin amin maman yakumo awa cheikh macha allah li nga def rafet na trop. walaay rafet na moom. comme yaay sama mag. damay topp ci say tànk rek benn yoon. faa rek. billaay. maman li yaa ko moom. ah ah eh eh Faa Bintu Faa Bintu lii lan lay nag yow tamit nak ku la bàyyi. la dara bi waaw ah, def moom it def na def na lu baax. bu doon saay boo ma ko joxee benn baaram damm kon ini, dese dara. yii lay xeetu baax baax yi nii lay defanteeg yu baax yi lay def ay faa. <laughs> waaw yu baax yi lay def. kenn du yéen ay jàmbaar ngeen dëgg yàlla. ci ay mbir laa fanaan ay càngat ak ay sarax yu takku gis boo amee jot nga ñëw fi ñu tàmbali liggéey bi ci kàttanu yàlla. nijaay Mor yebu ma. maanaam lu xew. Eh, maanaam lu xew. yaay maa ngi ñëw. foo jëm yaay dafa am lu muy ci kër après ñu déggoo. wala déggante naa la woo. baax lu mu ba ah xam nga sax xam naa dinaa ko woo après pour xool lu xew. waaw baax na. gis xam weekend bi danaa fa dem dina ma de. temps yii muy wax ak man téléphone ma métti. na ngeen def ah, naka mu faa. ça va Jirone. yéen a ngi si jàmm ça va <laughs> ah, naka mu. ça va. rek ñoo seet. waaw ah, maa wàcc rek ma naa fi ñëw seet si leen. <laughs> yéen ngi waajal. waaw ndànk-ndànk rek. noonu la. mu bëggoon ñu gisee nañ ñu petoo tuuti. petoo. waaw. faa moo tax. ah déedéet wax. wuyu ma faa mooy man man maay moom lu yendu ci man fanaan ci moom gisa buñ petoo woon nii li nga ma wax lépp mu dama koy waxaat. te <laughs> fàtt ne ay gone France ngeen yéen moom lépp moom ci kaw table bi carte sur table. <laughs> Eh, waaye du dara du dara nag. romb xale yi dégg la ñuy wax rek comprendre mu mbir mi nu mu demee may naa ñëw leerlu ba xam ne li may dégg neex dëgg la am deet fa lim mu bëgg def ni njëndum xar mi. dëgg la kay. kili ah, xal yow kilifa nga ti kilifa nak neeku ne lu am bëgg rek mu ci ak mom wa ci li ma ànd ak mom neeku lu bon ndax man xamé na lu bon xamé na lu bax su doon lim bëgg baaxul ci and ak mom mais lim bëgg da da ci and ak mom te may ko te muskalaf la mën na ko def. waaw mani ni man fi may waxee xam nga mooy fan dama bëgg ñu aar ko moom mii ñu def association ma ak yow pour aar ko parce que nee la wax jigul bant waxatuma la nit xam nga ne yow avant ngay jógee fii Sénégal dem France mosoo gis fii jigéen buy jënd xar fii ci kër gi te yow mosoo bëgg ñaar ñu am problème yow luy tas mbokk moom xam nga yow doo ci dox maag Sadikh bu sa nga toog di jooy waye xam nga na bugay ak ak ñam dafa am toke lu mu tuddu mu yàqu na bugay lool nak la koy ni hmm am fa indil fa am lool la koy bañal té na bugay dafa dugg suma garde né bi mi xamé né ki day jënd koy ba légui né man na ko jëndal laadu donc xana man lay indil problème ni da ngay def lo man bo tëddee nelaw ki jigen ju bax ji mani lool bu dé deug la na ci génn ba set ndax mom lay dimbali

ayo Khalid ki nga num lay ya, wowe lu ah lu ah tay nak tay nak da nga xawa sadik de non dama xamni fa gis nga ni may tonto de ki man la fi am ta doomu jamur la man mako wara protéger mako wara soutenir xali nak nob nga ma sa bop de nob nob nga xali bi de chéri koko am té li ya ko mom ah terang de kendo ka dello ha man buguma daga do la meti ay sama chéri koko terang de kendo ka dello amana soko yokke si li nga jotono am di nga mëna jëndal na bu gay la dum comme ça ciow li jeex fa yow mi da nga jot jënd ba pare wala wa sadir moma jaay man ak lu kula jaay kan nga ni sadir xana man lool bob fekkuma fi sadir mo la jaay xat saa waroon ngaa laajte bala ngaa def Sadi mbaa jaay la xaram boobu biir bi yaatu ni si boobu la kay. Hmm. Sadi day gazé xaram yi. gazé. mujj. Hmm. dana di gazé yéen xanaa xam leen nag Sadi day naan ay doom. Hmm. gis nga gis nga ni mu toll. ni muy naanee doom noonu lay joxe xar yi ñuy naan doom. mujj mani ni waroon nga maa laaj avant ngay def. ah yoon de yemul ci benn. lii nag maa fi am. mais grand bu def nii nag ah. déet waaye Bakir yow yaay taawu kër gi. kii sa jabar la. luñ la defal rek dañ la ko war a defal. jërëjëf. ah coow métti. kii dina mare. sinon noo mujjee surprise lay laaj. 시베 포마카라 다음 allo yaa allo waaw waaw noo def si jàmm ça alhamdulilah démb baa guddeewoo déedéet ma dama génn rek am oto ah ok ma alhamdulilah guddeewu ma Ah, alhamdulillah masih kontaan kota nah. hmm. kontaan naa doomu jàmbur ya, affaire yang paling lah masya allah sama kalau saya dulu buy xanaa dina ñaanal yàlla ya borom nga amin amin ya amin Isu itu kan lah hal sebarin na kontaan terus trop udah tiga ya lah yàlla yaa pak usi nyungsi ya, ini mah ngi fi indil ma kuy bu rëy rëy rëy ban ban moo ma indil kuy bu ah ku doy di tal ah loolu lu baax la. man daal xam nga lu bëgg nga jàppante faa. te xam ne Awa Cheikh fi mu teg ndeyam rek la ma teg ndax teraanga ji ku la tegul fenn du lu ko defal. lépp lu ma namba ci kaw suuf rek sama njaboot gi defal nañ ma kontaan naa ko loolu seetal. ko moom. bëgg ngeen la bu baax ndax la

na fekk nga mën a am fond boo yóbboo sa bopp rek. man soxla ma fond jamono yuñ toll nii naa am liggéey rek mënal sama bopp. aw Seck yow bu ñu la waxee dama nga liggéey lan ngay liggéey. déjà yow amoo liggéey parce que taloo ko woon bi nga si tollee dëgg war ko def boobu yaa ngi dugg si lu sa yoon nekkul waaw mais. ah mën nga dem def plongée am na xaalis journée six mille bu yàggee boo ko dajalee dina mën dara nga génné kër gi nak woon naa la ba sonn jotuma la. fa dem ba di génn kër gi sama xol bi dafa jeex dama mer de. madame lan la wara merlo fa xam nga ko jeeg bu bon bi ci biir kër gi mayu kenn jam yam ñin ñi fuñu yalla yamul fat ñepp na bu lan la la defati. faa bintu nabu war naa dem jël nijaay moo di ko duggal duggal ci ay ay ay xaar ak ay ñaan ci pour lan. madame da yaakaar ni que nijaay Mor magum jëmm bu doy ni moom bu duggaatee ci ay affaire de sérieux du coobare boppam. faa nabu la barki dem liñ jàppante ma moom ci biir kër gi. loolu lay vengé wu moo dem moo tax mu dem duggalaat ci nijaay Mor. Hmm. ah bu dee nabu loolu la def moom franchement nag elle a dépassé les bornes de. <laughs> en de ça moom moom xoolal xam nga ni ko loolu jikkoom la warulaa bett dafa ëppal xamul nànk te jikkoog borom pax. waaye nag àggal na guerre bi manang mom la nijaay mor la ci génne teg ko nele nabu duma ko may dara ci bir kër gi guerre bi manang mom la la mo ngi nijaay mor way mané bax nga ni guerre stratégie la. ati lan. am nga plan est-ce que. plan wala ok lol nak la la bëggon sax man fu mëna jaar na bu fa ba wax ko lo xamantene ne dina dagg xolam bi wala ma def ko lu ko nakari ba nabu bu tëddee mu du nelaw du añ du lek du rër biram bi di daw man li lay wut. xolal nga yow yaay yaay jëkkër yaral te yaay sama yaay tamit xam nga nan la ñuy def as ma dencoon nëbbu ko mu laa génne jox la nga déroulé joué. faa jeex la nabu du ma ko may dara lu ma ci waay naa ko. xoolal. Faa Bintu i i i ma xool ma xool wuy sama ndey nabu caan na. la ilaha illa Faa Bintu fu jël yow tamit ma ne man ma yor samay dossier toog noppiwaale ko nga ma fu jëlee lii. ma jógee sax naan ko Nabou Thiam te santul Thiam mënul sant Thiam ndax bonam. Hmm. <laughs> te lii moo gën a tuuti. way sama ndaay Nabou yàqu na fini. ii bëgg tey moom dama kontaan si yaw Mbare. lan tey moom xar bi bu ma ko gisee dama sax tiit. gisoo ko dara nag sama diggante ak yow yow del bëgg rek yow lo bëgg lo laa di def motax de sama xol bi dafa sedd ci digg dëkk bi tay ji hmm. def nga ma ñaaree te takk gooma mbaa yëg nga lol ma kon kañ mo ngi non nak man yaay sama aljam gam naa lol tamit yow kay bu jaaxle aw ma ku dul yaa tamit kuy fëgg fëgg baa doole bi mbaalu dëkkandoo yi xar mi dañ ko sacc sacc dama nga xol ki yow wa moo ma jaaxal wis sama ndey lan la. eh, eh na yow ni nga may def. nga def ni may fontoo yow. Eh, taxawal déglu. yow lay def fii Amady na bu la may toppee yow. dama ne lan ngay def fii. waa léegi man amoo droit dox bokk daal man seet samay nit. ah léegi da ngay fekk. na bu da ngay saaga léegi. ah da ngay duul léegi. eh. eh duul. ana sama sama xar dëkkandoo yi mi ngi si dëkkandoo yi foofu. xaw ma bëgg xaw ma suul xoolal. kon nga kan nopi ha ya. dégg li ma la wax jaara jaara fi nga jaaro ma defal dank defal dank ma de nga job jaara ni jaara fi nga jaara arrière jaara ni defal dank defal dank defal dank wuy ma eh eh lan eh, la sama bëgg nga tej sa gat nga jaar sama gat kan ngay tuddu yow jaara ni ma defal dank eh xol fay li ngay def nan defal dank yow xolal koñ bi bu ma fonto la la wax jaara ni te nga tej eh, sa gat jaara ni Yarın sabah. Najaleja bodam rajula